tey ñu daje fii pour xool liggéey bi nga xam ne commencé nañ ko fi mm-hmm. euh, pour mën ko yónnee ñi nga xam ne ñoom it ñoom ñoo dajale seen xaalis pour def ko fi mu nekk lu am solo loo xam ne ay jaam yàlla ñoom ñoo coobarew seen bopp génne seen xaalis ne nañ ko def foo xamante ne maanaam dina jëriñ ay ci ndox mais comme am na ay dëkk yu ko aajowoo jox leen ñu naan loolu caabale yu lu jeex ndax bokk na ci li ñuy tuddee sadaqatul jaariya mooy jëf ji nga xam ne soo ko defee daf lay fekk sa bàmmeel soo génnee àdduna sax yàlla kon ne dina bindal caaba kon loolu yëpp nga gis ne ay yiw la ay yiw la dëkk bi nga xam ne ñoom dañoo am jafe-jafe ndox ñu yombal leen ko waaye tam ay yiw la ci nga xamante ne ñoom ñoo génne xaalis pour loolu mën a am. maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax di leen wax bisimilah di leen wax dal leen ak jàmm. dëkk am contenté ak mbégtement bu baax a baax baax ah si seen téway fi ak seen alal bi ngeen jël andi ko fi muy ndariñ bo xani ah comme ni nga ko rek ndariñ la bo xani ah amul amul yemukaay yalla dogal na man ni di wax man ma nek chef de village bi yalla dogal ma nek ci kanamu population bi ah li nak nek ndariñ bo xani ah wax dëgg yalla man kenn waruma ci won jitu ah comme yalla dogal na amuñu katanu di ko def yàlla andi leen fii di leen womat ba andi leen fii ah muy njariñ loo xam ni muy njariñ boo xam ni wax dëgg yàlla askan bi dañ ciy jariñu njariñu bi mu nekk boo xam ne am na commencement mais amul yemukaay kon loolu ñun ngeen ko defal ñu ci ñu leen sant di leen ci gërëm bu baax a baax a baax ndax am ngeen ko ci dëkk boo xam ku ne xool na dëkk bi fi mu nekk nii sore na na jigéen ñi sonn nañu am nañu robinet mais na bi ndox bi doyul ndox mi doyul dekk bi ñu ngi soxla ay teen comme yalla dogal na ah yeen a ngi yëngu ci affaire bi muy affaire bo xamni wax deug yalla li ci nekk ci ay tuyaaba ah kenn mënu ko xayma bu len yalla ande ba ande fi bu ngeen ñu mënee dolliwaat comme lu mel ni wax deug yalla ah soxla nañ ko lool bi ci des itam soxla nañu école école arabe ndax ñu ngi yor ay tuut tànk yoo xam ne ñu ngi ci jàng wala jàng seen diine tey ñun bëgg nañu lool pour mën a defar école mais yàlla dogal na ah ñun ay baadoola lañ jamono fi xat na ba ni ñu ko bëggee mënewuñu ko ay mbaar la ñu doon defar amuñu mbaar yenn saa yi xale yi dañuy bëgg jàng sax mais ci ñàkk fu ñuy jàngee loolu dana dana andi tardement ba tax ñu waroon jàngee duñu ko jàngee kon bu leen yàlla andee fii nii ngeen di yëngu ci lu mel noonu wax deug yalla ah ñun bëgg nañu ngeen jappalé ñu ci école ak ndox. ñu mëna ñun jigéen ñi ak ñun goor ñëpp di laa su njëy waat ñu ngi sant gën gërëm yéen ñi nga yeen andi fi ndox mi ñu ngi ci sant gën ci gërëm ndax bu leen neexoon man ngeen ka bañ excel fi te yalla dafa ngeen excel excel gën ngeen fi ngeen xam ci seeni soxla nañ ko fi lool ku mel lo dañ ngeen ci sant ñu mëna ni ko chef di village bi waxa rek bu gëne yok dugg ci biir dëkk bi ñu gëna jël ndax xawna naa manque ci biir dëkk bi ndax dëkk bi ku ne gis na ni taxawé ndax xam nga ni boo ñëwee di duyé fi di yobbu fële ci xaw ci walaf ga ku ne xam na ni sore na ñun wa dëkk bi ak xalé yépp ñu ngi leen sant ak jigéen ñi ak mag ñi ndaw ñëpp ñu ngi leen sant salaam ngeen baal ci kàddu yeen ñi nga xam ne ñu ngeen fi walu ndox ñu ngi leen di ñaanal li ngeen di yëngu yalla na gëna yom te yalla na yalla wéral ci yi ndax li ngeen indi fi ci dëkk bi wa dëkk bi soxla nañ ko lool. ndax ndox mom moy dundal lépp te fu mu jafe rek ah daanak lépp da fay gëna jafe. waaye yéen tamit dañuy leen di ñaanal ndax ñëw fii dafa sore te gis ngeen choono bi ngeen daj wante yàlla na leen ko yàlla fay te yàlla tam yàlla na yàlla yegge seen liggéey ba mu upp tamit seen njoort ah loolu rek la leen di ñaanal. sam sommes dans le village de Ndiaye Wade. ou ce puits qui est un grand symbole pour cette famille. Trois personnes disparues de la même famille, un puits financé pour une sadaqa diaria. Pour eux, un puits dans un endroit où le besoin était vraiment très très présent jusqu'ici. Donc, mashallah, vous êtes venus soulager des gens qui étaient dans un besoin vraiment vraiment réel. Et donc, du coup, nous souhaitons qu'Allah Azza wa soulage vos morts, qu'il leur pardonne, qu'il les élève dans le Firdaus qui leur accorde son pardon, qui leur accorde une vaste miséricorde et qui leur élargisse leur amour. Ah, ah, ah,